gis nga ci nga ci nga ci am. waaw xam nga <laughs> loolu loolu mën nañ ci am jàngat yu bëri. Mhm. en tout cas mën nañ jàpp rupture am na côté boobu. parce que lu ñu tàmmoon si mooy gouvernement yi nekk ay politique. waaw ceux qui ñoo ci daan nekk à pour cent. est-ce que loolu moo gën. wala est-ce que am ay gouvernement technocrate moo gën. loolu ça dépend ban école nga bokk. <laughs> tey jii nii lu ñu mën a constater. mooy que ils ont fait le choix. d'avoir un gouvernement principalement de technocrates gis nga gouvernement boobu ku nekk ci yow mën nga mën nga aspirer nekk président de la république parce que am nga l'étoffe qu'il faut mm -hmm. comment on va gérer tout ça benn la mais c'est bien parce que dans la forme vraiment contenant bi mooy ceux qui sont là on apprécie. même on salue. parce que c'est des man am na ñu ma am na ñu ma ci xam ñoo xam ne. à benn ñaar yoo xam ne voilà. waaw waaw mais c'est normal mais am na ñu ma ci xam te c'est une grande valeur ajoutée. am leen ci gouvernement. Mhm. loolu moom dañ koy saluer léegi euh, lii des. maintenant est-ce que les hommes les noms le parcours est-ce que c'est ça qui fait une bonne politique pour que Sénégal mën a jëm kanam foofu laa jëm c'est-à-dire bu loolu weesoo gannaaw ba nga rafetloo les profils. Mhm. ak CV yi. loolu nan la mu nar a ànd ak la réalité du pouvoir mooy question bi parce que c'est des spécialistes. Mhm. mi soxlawoo ay spécialistes. ay manager nga soxla on va voir si sont tous de bons managers ñun xam nañ ni que ci seen biir am na ay manager man am na ñu ma ci xam parce qu'ils ont dirigé par le passé mm-hmm. am nañu ay résultat ay techniciens lañ mais ay manager lañ donc premier critère de succès loolu la mais deuxième critère est que ñoom ñëpp ay réformateur lañ mm. parce que ñii réforme la ñu indi donc ils sont venus avec une idée de rupture est-ce qu'ils sont tous des réformateurs loolu c'est l'avenir qui nous dira mais ils ont de, les profils qu'il faut mais parfois avoir que des spécialistes n'est pas forcément n'augure pas forcément parce que après les directions générales mm-hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire c'est un de deux qui va faire la politique